الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون بعد حديثنا في الأسابيع الماضية عن العلم النافع والعمل الصالح نود أن نتحدث اليوم عن المبدأ الثالث لدعوة الشيخ الخديم رضي الله عنه وهو الأدب المرضي والأدب المرضي كما بين الشيخ الخديم رضي الله عنه يشمل الأدب مع الله والأدب مع الناس كن متأدبا مع الرحمن ومع خلقه بكل شان أما منزلته فيكفي لبيانها أن نورد أبيات الشيخ الخديم الآتية عليكم بكثرة الآداب فإنها جالبة الثواب فكثرة العلم بغير أدب جالبة إلى الأذى والتعب إذ كل من بغيره رام اتباع فإنه يحرم فوزا واتباع فإنه يحرم فوزا وانتفاع وهو في الدارين خير كنز وخير ما اعتز به ذو عز لأنه المنور الجنان كما يقرب إلى الجنان ويوجب المدح لدى الجيران كما يبعد عن النيران noo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi di ñaan yàlla mu dolli ko xewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba àddinay tukki mbokk yi ginnaaw bi nu waxtaanee ci ay bis yee weesu bi nu waxtaanee xam-xam ak jaamu yàlla te ñuy yaari keno ci keno yi téye yoonu sëriñ bi tey nu bëgg waxtaane ñetteelu keno bi te mooy ab yar ak i teggiin yar ak i teggiin nag ni ko sëriñ bi leerale a cheikhul xadim radiallahu an dafa ëmb lu jëm ci diggante nit ki ak boroomam ak lu jëm ci diggante nit ki ak moroomi bindeefam sëñ bi day wax ne na nga ami teggiin sa digganteeg yàlla ak sa digganteeg bindee fii ci mbir mu ne wàccuwaayu teggiin yar ak teggiin nag li ci sëriñ bi wax bari na waaye dañu ci indi rek yenn bayit am na fu muy dénkaane ay teggiin di wax ne ay teggiin mooy tax ngeen mën a am tuyaaba mën a amub yool ndax nee na bari xam-xam bu àndut ak ay teggiin lor rek lay jur ak coono mu wax ne képp koo xam ne bëgg naa topp yàlla te boolewu kooku teggiin na xam ne du ca am lam cay bëgg du ca jariñu kon gis na ñaari ponk yi ñu waxoon muy xam-xam ak jaamu yàlla lu ci nekk sëñ bi nee na balaa am njariñ day ànd ak i teggiin mu ne teggin mooy li gën ci lu nit di am àddina ak alaaxira moo gënit ci lu nit di mën a amee teraanga ak tedd nga ndax teggin nee na mooy leeral xol waaye mooy jegeel nit itam àjjana mooy tax ay dëkkandoom di ko tagg moo fay soril itam sawara teggin bi nit war a am digganteem ak nit ñi nag te sëñ bi di ko digle li koy tënk ni mu ko waxee moom mooy nit ki ki mu mag mu yërëm ko ni ko ñaari waajuram bi yërëme ki ko mag mu warmaal ko wekk ko ki mu maaseel mu def ko ne boppam sëriñ bi nee loolu mooy tënk ay teggiin ku ne xam na ne nag teggin yi sëriñ bi wax bu fekkoon ni ñaa ngi koy jëflante ci seen biir kon jàmm rek mooy am ci àddina si ndax kuy yërëm ku mag ku di warmaal ku ko mag ku di def ku mu maaseel ku ne ne boppam bu boobaa bu yaatoo jàmm rek mooy am ci àddina si waaye itam war na noo xam ne ay teggin li ci sëñ bi santaane mooy nit ki moom di xool li ko ci war li mu ameel nit ñi ci teggin mu di ko xool tey bañ a xool liñ ko ameel moom mooy nay xool li ko war moom waaye bu muy xool liñ ko war a defal loolu la sëñ bi wax dafa wax ne yow na ngay yittewoo sa teggini bopp yow li nga war a def waaye nag bul di yittewoo liñ la war a defal nga di ko sàkku ci nit ñi noo ngi ñaan yàlla mu defal ñu waat nag wa àllaaxira musal nu ci sawara sàmmoon sunu ngëm ubbil nu bunt ci yiw yëpp soob nu ci ak njub mottali suñu yéene yëpp may nu fan nu gudd ak wér ak mun ci rafet الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة المؤمنون إن الأدب مع الناس الذي يدعو إليه الشيخ الخديم تتمثل خلاصته في رحمة الكبير الصغير كما يرحمه أبواه وتوقير الصغير الكبير واعتبار المماثل في السن كالنفس طريقة الأدب رحمة الصغير كالأب والأم وتوقير الكبير وجعل مثلك كنفسك سوى لوجه خالق على العرش استوى ولا شك أن العالم يسوده السلام واليؤام إذا بنى الناس علاقاتهم على هذه الأسس النبيلة ومما يجدر التنبيه إليه هنا أيها الإخوة المؤمنون أن من يريد التأدب يلزم به نفسه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 وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله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 bu ñuy taxawal na ñëpp sës ci sàppe yi sàppe yi génn ci biir jumaa ji nañ ci sës lu mu ngelaw ngelaw lu mu naaj naaj bu nu muñee tuuti rek man a julli sunu julli man a wér ndax jullik àjjuma balaa wér day amee ci jumaa li tax mu amee ci jumaa nag mooy nga ne ci biir jumaa ji wala nga jokk ci sàppe yi ci jumaa kon na ñëpp jokk ci sàppe yi ba julli ba noppi أكبر والله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة والله أكبر